man quand j'ai vu cette affaire de de de de de de kii de Pape Ndiaye ñu naan nañ ko fay ak daay nangam nangam kenn fayu ko dara. Mhm. il essaie de retourner sa veste. parce que gëm suñoo gëm dara kenn suñu ñom ñi di wax yu Sonko ñi ñu ko matu gëmatuñ ñatt hmm dañ soo profiter pour am notoriété profiter aussi pour euh euh, euh jaay seen ngor.

ak taskatu xibaar yi fexe nañ ba teg ko ci la place publique. dëgg la damay faral dégg doyen du Wade muy wax ne. Euh, nee na la presse c'est une dame capricieuse. Mm-hmm. mu ne boo jëlee politique day nekk maanaam góor gu góor gu par exemple ni ni ma ko mën a waxee góor gu euh, moom it bu am melo. Mm-hmm. mu ne seen sëy mënul ne. dëgg ils vivront un concubinage éternel. dëgg la pour dire quoi pour dire que ne so xefee rek gis nga ni politicien bi mën a soppee taskatu xibaar bi noonu la taskatu xibaar bi mën a soppee politicien bi léegi nag loolu nag mooy te ku ci nekk ay pouvoir nga yor mhm. donc kan mooy perte mais askan wi mooy perte ñi daan topp tey le ciel pap Ndiaye mu leen di éclairer nga xamante ne l'information est sûre que quand ça vient de lui voilà loolu jëmoon y a des sénégalais maintenant ban déception ak nan la ñuy attee maintenant ils peuvent être des gens yoo xam Les boire boo waxee ñu ne saway man daal léegi lu ma sama bët lay gëm. mais mais mais man man l'ol nak loolu man moo neex ci affaire bi au moins la euh, euh, Sénégalais yi dañu gën a xibbi seen mais tout à fait ndax euh, xam ne fii constance dafa gën lépp ndax nit boo nekkee ci sa nekk ci dëgg rek a wóor. Mhm. te dëgg na boo ci nekkee bu ci ragal man ba wax ci Sonko boobu Sonko siiwagul. Mhm. boobu Sonko ma ngay doog a di euh, poñe réseaux sociaux yi ku wax ñu saaga la ndey kenn ñemewul wax. man dong maa taxaw di wax te la ma doon wax jamono yooyu ba tey moom laay wax. nga bëgg ma nga bañ ma sama yoon nekku si ndax man ba may siiw boobu Sonko mi ngi toog Sonko yàgg naa toog ci télé dama seetaan. di ma bëggee. boobu xalaatul siiw kenn xam ko boobu mu ngi ci couloir poussiéreux yu impôt <laughs> impôt et domaine dans un bureau benn ndox benn bureau bu bu xóot fee di wax. Mhm. donc ñun nous sommes homme politique yi dañuy homme politique bu ne jaar na sunu kaw ñu koy mënuñoo impressionné mais ñun suñu race bi moo jeex mhm. ñii bees ñii c'est des caïmans des vautours mhm. ay segg yoo xam ne dañoo ñëw pour ut tur nangam léegi nag euh, man dama ko ma jël sax yërëm parce que fromage lañ ko def boo xam ne nii ku ñëw sàq mais mais il fallait que Sonko daanu mhm. parce que ku jóg sàq mi lekk ñii ñii ñii cuqati ci lex bi

tout ñu ni xaaral sonkoo ngi dem sonkoo jeex na lekk nañ ko ñu nañ ko ba yax benn yax bu rek moo fi des mhm. yax boobu <laughs> ajjuma la ñuy xam ndax yax bi dañ koy euh, euh, euh, cin li dañ raxas cin li dañ koy bale tuur wala dañ koy tonn ko si mbalit mi ñu ni kon léegi xaaral en attendant loolu di am Macky Sall mi comme demagul xaar ñu jéem a xool jéem a neexal quelque quelques euh, euh, euh, euh, euh quelques euh, comptes en banque. Mhm. ay Moussa Fall ak yooyu ñun xaañu benn quelques comptes en banque neexal leen. Mhm. pour am benn 1000 francs 2000 francs mais xam nga kooku c'est une humiliation ba pare imagine toi Pape Ndiaye wax fi lu garaaw. Mhm. moo tax j'espère que wawal fadi duñ ko mayati mu def ay chronique ndax.

amna ay financer des enfants ou des jeunes ñuy dem ci mi. mais normalement. le procureur. dafa a mais comme yow. nek nga une personne. autorisée. Ah, autorisée bu voilà né nga xam mais nga xam. ñi dans leur insouciance. dem pour en faire une récupération politique, une mhm. récupération alarmante, tirée sur euh, l'appareil d'État. Mais parce que xam ko mhm. peut-être 20 jeunes sauvés demain. ou 30 jeunes sauvés dans, une ah. semaine. Ou 100 jeunes sauvés dans deux semaines. Donc, je ne sais pas, moi, je que ton colérique, je me suis mesurez Non, mesurez Parce que, comme je le il y a des moi c'est des gens pour qui je n'ai absolument aucun respect parce que quand je les assimile à ni jaay Ils ci bu guddi joté sol seen jupe yu gàtt def seen cheveux gudd di jaay <laughs> parce que xam nga jaay yàpp mhm. et euh, euh, écoute ce qu'il a dit def une enquête bu saf sap, mhm. bo xamné ont li ñu dañoo toog ba xaar moom reprendre chronique chronique yoo ni Ils moom fait depuis longtemps rayna émission depuis longtemps 2024 2024 parce que dégg ah. lool mhm. après les élections donc donc bu béy woyé mbouss depuis, parce que et et et puis il fait encore dans le chantage et la menace naan am na ñoo xam su ma li ma xam su ma ko waxee ñu lu am parrainage du ñu am sa signature donc quand il dit ak drame bi constitué. Mhm. Euh, cette cette cette affaire d'immigration là xale yi di dem di bàbbeeku di dem par milliers di dem et autant de morts. Mhm. yow nga toog ci euh, chaîne de grande écoute. heure audience bu am solo. Mhm. nga taxaw ne yow drame boobu nga taxaw oser wax ne yow tu as des informations parce que tu as mené des enquêtes. Mhm. am ngay te boo ko waxee kenn du ko weddi. Mhm. ndax chronique judiciaire c'est sa bokk la benn activité judiciaire bu taxaw ne. def na enquête ju yow nee mhm. journaliste nga. ndax quand même euh, nekk na fi mos na fi nekk man si xaw ma fan la jàngee waaye xëy na su ma nekk fi convention des présidents convention des jeunes reporters. donc euh, kenn mënul douter ci qualité journaliste donc cette personne là quand quand quand elle se met devant. 18 millions de sénégalais Mais euh, une enquête bu et que nous a ay preuves que c'est leaders de l'opposition financé contrairement à ce que ces mêmes leaders disent de l'État mais immédiatement normalement te woowuñu ko procureur autosaisir na ko nga wax ñu nga xam. mënees na sax jël benen patch bi mi wax né xam nga bo gisee bus bobu yaraax biñ ko fi bi fi amé man sétlu na média bi mu nek mom bokon na ci média bi gëna a prôné. waaw que ne lii complot la waaw. té à l'époque je pense que euh, ba tey. buñ bu xaré ba tey mu né lolu mom considération bi ci am. moy mhm. terrorisme la. Mhm. parce que tamit amna kuñ japp ca États-Unis ne ca ña ko organiser la mm-hmm. États-Unis l'ont ko sa déclaration est venue après tout ça. Mm-hmm. donc lan moo xew ba mu le timing bi. wax ko ensuite bu ko en tant que moom taskotu xibaar l'objectif mooy lan lan c'est pour dire aux Sénégalais quelque part ñii ngeen def des anges mm-hmm. ils ont un nœud des démons wala tay ñi ngeen defone démon rek muy ñi ngeen japp ne bon mo jëm ci état amna aussi de l'autre côté c'est-à-dire positionnement bi mu bëgg moy bëgg na circuler des gens vers une direction légui nak lam ca jublu xeyna mom mom moko xam mais

ñooñu ñooñu ñëpp euh, euh, euh, ña ma fay gis am na ay xale jigéen ña fay gis ñoo xam ne des fois ma rombal leen ci TikTok bi ñu taxaw di jël ay posture yoo xamante ne. Mhm. noonu xam nga tey suñu métier bi moo yàqu rek. parce que ah, tey jii. lu naqari diw neex nañu rek. waaw waaw loolu la waaw xam nga xam nga yooyu. lu naqari yooyu mel noonu léegi tey jii moo da démb ah démb gis naa gis naa ci ba muy wax dégg naa ay ay kiiwam yooyu ñooñu muy àndal. ils ont été aussi surpris que nous. ils ont subi le choc. Oui, ils ont subi le choc. tout à fait et c'est bien fait pour leur gueule parce que tout simplement comme nous, jël seen lépp dem jaay ko benn nit. qui mhm. nga léegi kazak c'est lui qui les a entraînés dans ça man ce que j'attends euh, de l'État. parce que il faut qu'on restaure l'État de droit. Mhm. comme ñun journalistes nous ñun ñun dañoo échoué. Mhm. ci defaraat suñuy rang defaraat ba rang yi jub. assainir suñu milieu bi, ndax ñàkk ko moo tax nga gis ku dof bu jóg ne chroniqueur la ku jóg ne journaliste nga gis nga ko euh, ci affaire ñoo Mame Mbaye Niang yi mm-hmm. ñooñu nga xam ne xam xamuñu bu ñu bojj bu ñu bojjul mm-hmm. euh, dégg naa sax ba ñuy baalu ak xoolal xoolal ni ñuy baalu ak c'est tellement humiliant def bind def benn naan xaw ma allo Dakar

nga am ci preuve yu leer. man pour man ah, amul benn intérêt pour public gisuma intérêt bi mais par contre créé nañ ben souffle bo xamantene eh, information bu toll non day nek intérêt. voilà moy ñi nga xamantene ne yàqamti nañ ne. ñu ne diw mi diw mii Mame Mbaye Niang mii nekke ci tank ndeyjoor bi. wala amna na ci tank chamoñ buñ ko waxé bu léré c'est une manière manam dañoy yóbbu ci rendre manam dañuy jël nit. ne nañ fexe ba nit ñi bañ ko. foofu voilà voilà voilà. nañ àgg ci nit ñi bañ ko. xam nga